asalaamaaleykum waa Sénégal asalaamaaleykum wa diaspora rawatina yéen ñi nga xam ne ne yéen ñi ñuy bàyyi xel à tout le temps xoolal tay nak xam naa ne xam na moon ngeen ma sax mais Eva ngi nii ñëwaat ak yeneen i film yaa ma gën a xam ci seen émission li ma bëgg a ay ca damay daal def ni kon la ma fa woon rek defee ko kon na ma ko daan defee daal di xool kenn dégg ko sama micro laaj ko lan la bëgg a ay saal sali top ma ak ki nga xam ne ne moo Balla dama fat sama monteur bi Fadel ah li lii ñu toog depuis sànq si bolen ma ma gis gel bu mel ni naw moom dafa fekka kay ñëw wan leen ko ma ngi frit e ko sama micro laaj ko moom lan la bëgg a doon Aïcha asalaamaaleykum sëñ bi ci ko mais lu ngeen def xama tek wéré ba xam way mom la kay mo nek ya ci noy may to sa non aka mala xamé yow defal ni yow yow da ya nek ni way luy li war lu xew man may def sama émission ta sét yow nga ma lo xew man émission ngeen def ni lima bëgg doon ah xamé <laughs> mo sama émission bi ya ah jom len kay wax jom star <laughs> dafa leer indi. léegi man man loo ma bëgg a laaj tey. yow loo bëgg doon laa la laa la bëgg a laaj. loolu jarul laaj yow xam nga ma bëgg a doon. non dama damay toog laaj la ko ñi ñi nga xam ne ne ñu ngi ñuy seetaan. waaw ñëpp gis. ah Diana. ñëpp dégg loolu man man moom yow moom xam li ma bëgg a doon yow. waaw léegi man xam naa ko. Ah. léegi ñuy seetaan laa bëgg ñu xam jom lu mu bëgg a doon. nañ leen <laughs> daaj daa garaawul tey damay taxaw min naa loolu dama doon taxaw dama ah, def sport quoi xam nga rek yii laa yëngal waaw moo tax ma eh, eh. Eh, sama émission li ma bëgg a doon fekk fii nga xam ne ne mooy Jom euh, Jom Star bëgg ko laaj moom lan la bëgg a doon ki nga xam ne ne moo nekk ci nooy maytoo sa noor <laughs> Jom na nga def maa fii jëm yow loo bëgg a doon. waaw sànq ba léegi maa naan yow waroo ma laaj lan laa bëgg doon yow xam nga li ma bëgg a doon. mais su ma la ñi lay seetaan duñ mën a xam li nga bëgg a doon jëm. da ngaa bëgg a xam ñi seetaan xam li ma bëgg a doon. waaw loolu laa ah, bëgg moo tax ma. Ah, xam nañ ni man li ma bëgg doon mooy sa jëkkër. <laughs> waaw man sa jëkkër laa bëgg a doon leneen lu ma doon ci àdduna te doon ma sa jëkkër. Ah. noo kontaanu ma. waaye yéen dégg ngeen jom de nee na man sama jëkkër la bëgg a doon waa jom tamit kuy ñëw waxaat moom. ah mais sama bëgg-bëgg nga ma laaj. sama bëgg-bëgg nga ma laaj man bëgg ma doon dara loolu jëkkëru Eva. ah léegi pourquoi yow Job Star nga bëgg a doon sama jëkkër yow. ah pourquoi Eva Star waruma ko xool rek bar de xoolal li nga def booy doo seen morom. xool li nga def xoolal daal yi ci suuf jom laa jàkkaarloo man daa mel ni damaa jaawale non déglu ma rek mm. xoolal xoolal daal yi mm. gars yi jël daal yi cameraman yi jël leen daal yi xoolal xoolal ma xotteeku leen <laughs> ah ah simis bi nga def nii yow da nga dégg quoi yaa ngi may jaay gis nga bu ma yéegoon ni tey da nga fiy jaar mm. non damay coloré bu mu saf-saf comme ça boo ñëwee xam nga ñu defar affaire yi mu jeex waaye am na leneen loo bëgg doon wax ma loolu jom leneen da ngaa bëgg saa débat bi jom kat man ma ñew di la dalal sama émission ñepp bëgg xam lan nga bëgg doon nga ma sa jëkkan nak jom nak xam nga limu bëgg doon bari na waay man limu limu limu limu limu limu ñëkk bëgg doon moy doon sa jëkkër ben so ma laajee ñaarël bi nak mu naal ko wax ko ko graw <laughs> prem di mom mom moy bëgg doon sa jëkkër waaw mom la bëgg doon yeneen yi dess nak bu ma ko aussi mu na ko wax jom man na ma xé ci yow da nga ñu motax nak andi bi wara rafet bu gine xol dom bi bu juddo day xeereer. munuma ko japp fenn garawul leg deuxième bi lo beug doon. ah bo deuxième bi nak limu beug doon tamit batay lolit xam nga ko. xam nga métier bi may yengu xam nga xam nga lumay def. bëgg naa ci doon nit ku mag maanaam daal bëgg naa doon acteur euh, cinéma bu mag. waaw bu mag. acteur cinéma bu mag. bu mag ak bëgg yu rëy nag ndeysaan. hey jom ma ngi nii yàlla kaay ma wax la benn affaire yàlla soo koy ñaan lu ñàkk fayda du la ko may. parce que moom moo yor lu dul jeex te doyoo ko dara lépp pour ñun kon ñun buñ koy ñaan dara dañ koy ñaan lu rëy moom ci lay ci lay gën a gaaw sax boo ko ñaanee lu rëy fat fat daloo koy may mais ay ñaax fayda ay ñaan ay kër ak oto ak yooyu noonu non danaan kii day xaar got li ma koy ñaan benn affaire dong la <laughs> acteur international waaw acteur cinéma mais yow pourquoi waxuloo ma xam nga yenn saa yi seen jaay taar yi dañuy dégg ñii naan man dama bëgg woykat comme Wally Seck ñii di xëcc fële ah ñii di wax yeneen yow nga ñëw ne euh, acteur téléfilm nga bëgg a doon lan moo la poussé ci loolu. waaw gis nga yàlla moo bind te yaamalewul boo xoolee ñun ñii ñëpp nduroowuñu pour pourtant li nekk ci yow rek par exemple li nekk ci gaa yi di filmer moo nekk ci man ba ba tey nduroowuñu quoi. Mhm. voilà noonu la tamit soxla yi euh, demee aussi quoi bëgg-bëgg yi mënuñu doon benn waaw ku ne ak li nga bëgg a doon ku ne ak li nga bëgg yàlla na fekk lu baax rek waaw loolu moo ci am solo man moom li ma bëgg a doon wax naa la ko tey jii ni bëgg naa doon acteur bu ñëpp di coow ci ci ci àdduna wax mu moom lay ñaan yàlla. ba commencé euh, di jouer ci téléfilm yi yàgg na. waaw mu ngi bëgg a yàgg ah. parce que boo xoolee. Hmm, war na def euh, ay ay ay dix ans. dix ans waaye wala neuf ans dix ans neuf maa ngi maa ngi ci ci ci bagage yi xam nga di euh, gars yi di wax tepp tepp moo gën yureet peut-être xam nga yàlla yàllaa ko bëggee nii. bientôt peut-être xam nga ma doon ma doon ma doon ma doon ma doon fii ngeen di maam star yooyu comme ni may woowee xam nga. na nekk quoi tegal nii euh, defe naa affaire aar bi boo ci nekkee xam nga dafa te ñàkkul loo xam ne ne euh, jànkonteel nga ko ci avant nga ciy dugg dégg nga euh, ay yoo xam ne ne daal metti na neexul ci xol. Mm-hmm. yooyu na nga daa sot nekkee ci milieu dañ ñii dañ naan day dem ñii naan du dem. Mm-hmm. loolu noo ko dundee. waaw waaw naturellement laa koy dundee parce que àdduna moom fii boo fi nekkee loo mun ti nekk soo nekkee sax jaamukat yàlla bu bu mag dañ naan kii li muy def gëmu ko wala lii du continuer est-ce que dina wéy loolu mënul mënul mënul ñàkk mais l'essentiel yooyu euh, li nga bëgg. xam aussi fi nga joggé xam fi nga jëm lool dal mu ci upp solo quoi leres nak après nit ñi euh apprécier apprécier ñu dul apprécier tamit kenn du leen méré parce que am nañ ci droit voilà lool la. légui yow sa sa euh, premier jour bi nga bi nga jakkalo jàkkaarloo caméra yi lo sentir. waaw lu graw bay man dama yaakaaron nak jour bobu non suma gennon génnoon rek bu affaire boobu noonu maanaam daal jour bi may bi ñu may ma yaakaaroon su ma génnee télé mhm. maanaam monde bi yëpp may seetaan fa laay jaaroon rek tàq ndekete affaire yi du noonu quoi. <laughs> <laughs> ndekete affaire yi étape par étape la escalier la quoi nga comprendre. <laughs> baal yow da laa tim caméra nga ne nga ne wuy yaay génn na non bi ñu may njëkkee teg caméra ne ma action. Mhm. non dama ne léegi damay changer comportement. changer nu may waxee. gel yu yi may doxaan dama leen di bàyyi jéem a xool ay ay mannequin xam nga ay boy yu tooy yaa ma gënoon noo xam nga. esprit boobu noonu moo nekk boobu nag boobu xale laa woon quoi tamit boobu maa ngi nekk boy bu ndaw xam nga. loolu daal noon laa ko dundee woon quoi dama yaakaaroon moom bu ma xasee génn benn yoon moom adduna bi yëpp dañ may seetaan après fu ma tourné jom jom ngay dégg ndekete demewul noonu. <laughs> mais maa lay gis euh, ci euh, série euh, nooy moytoo sa noon bi nooy moytoo sa noon bi defe naa ne Sénégal ñu bëri ñu ngi koy seetaan ñu ngi koy bàyyi xel bu baax a baax a baax. loolu loo ciy kii nii loo ciy wax. waaw di ci am kontaante bu rëy xam nga tamit ngay def dara nit ñi di ko seetaan dafa neex. mom ngay ñaan yalla en ci ar bi ngay yëngu bu nga sa yo génné dara xam nga nit ñi diko xaar te bu génné nit ñi di wo sétan lool ngay ñaan chaque jour wa lool mom dama ci contane trop trop trop trop wa li dess nak lay gëna gor gorlu xam nga gëna gëna gëna ñafewat xam nga parce tamit euh, yegg ci kaw pour man yomb na quoi dess fa mo jafé wala léegi da ngay xool def ba dess fof wala lool la quoi léegi comme man ma ngi premier pas après deuxième pas mo ci tek euh, mais bu ma demee ba egg nak ci dernier pas bi fé มวยฟิกาปุยดีได้เจ๊บัวบานน้าขอนน้าเล่าเดฟบัดเดสฟเล่กนักเยาวดังไม่หว่กกันมวยที่กันมวยเสืออีดอลเชอาร์ว้าวอาว่าว่าบัตรไอ้มุน่าหวักสมัยอีดอลยายดอสมัยสมัยอีดอลหลอนมุมใช่ยายดอสว่ายายดอสยากัน่าเซนกาลเยอะเออคำหนึ่งก็ขั้นเลยนะแล้วมอลกันอันนี้ใช่ไหมเอ่อฟิล์มวิวาเฮมันลิมกันอันนี้ใช่ไหมฟิล์มดูมันจ์ก็เสียตันใช่มหมบ้อภิเษกบ๊อบเบลเลยมวยฟิล์มวิาเฮจูโรมีบารัมโซคัตัเลยยัลวันเลย benn baaraam boo ko tàllalee joxoñ la filmam boobu noonu man man duma ci doyal waaw ah, non boobu boobu boobu beneen affaire la boobu Sénégal laay gis quoi voilà Sénégal laay gis quoi benn instant moo tax dama koy dama koy dama koy dama koy dund bu baax film boobu noonu moo gën a tax moo gën a bëgg doon tey ji nii xam nga euh, acteur bu mag mhm. waaw comme moom wala ma dépassé ko pourquoi pas waaw ah, ah waaw mais loolu la loolu la jëm naa lay tegal mais instant bi ne xam nga star yi moom jël yi dañ leen yi topp waaw sonal leen ah fatt leen tarik, yow mm. nooy nooy nooy dundee loolu non man moom tollaguma fu ma booy di sonalee quoi mm. nii nii nii sax maa ngi wër mais du ma am dara parce que gars yi xamagu <laughs> yow léegi nga ne ma ah da ngaa bëgg doon sama jëkkër léegi nga naan ma damay xam nga yow benn mm. affaire dafa am yow du di la naan xale yi ñu may ñu may topp boobaa kay sëy bi yàqu yow loolu <laughs> <laughs> loolu du ma ko def yow instant yi man kenn waruma waruma kenn yow laay wër te bu ma sañoon man ngay wër. maa la jubbanti de waaye su ma la bàyyi woon ci biir nga xuus jàll tarxiis daal waaw yow dama ne déggoo ma de. Hmm. du ma mus a tarxiis parce que booy dofu ma nag maa ngi sama xel xam naa li ma bëgg. Hmm. ki ma bëgg laa taxawal te loolu Sénégal yi Sénégal Sénégal yëpp xam nañ ni man. mooy loolu man man yow laa bëgg de booy ay émission yi taxul may wax de dama ci dëgg laa nekk. non dafa dëgër fi nag ngeen fay seen caméra ya man moom laa bëgg <laughs> te a puis bientôt di ngeen dëgg sama diggante ak moom. waa xoolal tee ko foofu man moom xam naa ne di ma yàqal rek waaw wax ma lool. papa boobu nag laa doon nga bàyyi. <laughs> ay ma yàq der de mais garaawul Diome euh, looy wax fan si. ak ñi nga xam ne gis naa ñuy commentaire ci nooy mayto sa noon bi yooyu loo leen di wax. waaw di leen remercier dina amuñu seen fay xam nga euh, di kontaan bu baax a baax si ñoom parce que xam nañ ni euh, ñoom ñoo ci jàpp ba yi toll fi tey amuñu seen fay quoi. waaw buñ tollee buñ commencé rombale ci ay mbedd ay nit di ñu woo xam nga léeg-léeg ñu dem yenn milieu ay nit di ñu xëcc man affaire bi kaa la may def est-ce que xam nga commencé naa léegi dugg <laughs> da <laughs> wu leen balaa moo xat waaye dama ne la nee naa nee naa leen ku bëgg wu <laughs> ñëwal photo wu léegi xam naa ni fii ci kanam moom sa dafay damay cenc de ay foto di dama koy arrêté de baadu dootoo photo wu waaw mais star nga wax ah. waa xam nga lu star fu Youssou Ndour ne. waaw. ah. jërëfam lool nga wàcc suuf. gis waali. waaw. booy ñooñ fi ñu nekk dafa kawe de. yow daal fan nga bëgg a romb daal yow. waaw yow. vitesse dawee film bi nag ma maa dama ci bugg a doon bandaam xam nga. tamit comme woykat bi ni mu ci bëggee. gis naa la tamit ci ci ba euh, euh, badu bi. waaw. boobu tamit yaa ngi si waaw boobu maa ngi gis nga boobu nag. foofu mhm. la foofu laay jaaree nag tàq ba faw. foofu boo fu takkul damay bàyyi bagage yi quoi. Ah. bato bi ni ñu ko paree nii nii nii nii ni mu demee nii. ak bind bi ni mu jaaree yoon. ak acteurs yi ci nekk nu ñu aayee tàng jër. booy lii bu takkul damay bàyyi fii laa ko waxee. bu tàqul bu ba ci tàqul moom bàyyi naa ah? waaw moom la de. bu tàqul da ngay bàyyi. yaa wax lool. kay bu tàqul booy mooy lool. waaw kon neex na jom laa fi taseloon ah? da daal koy dalal sama émission ah, li ma bëgg a doon dégg ko sama micro mais dégg ngeen li mu wax kaañoo ma la na mais garaaw du ma ko topp dama koy baal ba caméra yi nëbbu rek ma daal di wax ak moom. <laughs> Eh, xoolal sama caméraman nag damay xam naa ne dama koy daal di fii nii daal di dem ci beneen milieu laaj fa dégg fa sama micro laaj fa moom lan la bëgg a doon ayca damay remercier nag ñi xam ne ne ñoo may filmé kii nga xam ne ne mooy euh, Saliou ak ki nga xam ne ne mooy Bala mais du ma fàtte sama cadreur bi nga xam ne ne nag mooy euh, Fadel kooku lañ naan del fa tamit dëgg toll noonu ah. waaw. bu ma fàttee ma nit waan am naa. du ma fàtte sama mujj. lu des benn affaire moo des. waaw dama ko yoroon rek mais bu ma dajee ak yow. am la koy solal Sénégal. wuy wuy wuy. ñëpp na ñëpp përëm la përëm përëm përëm përëm dégg ngeen përëm wuy përëm wuy waaye jom lu ma jaaxal mooy